Bienvenue Yaceli Beauté yegsil ak jàmm tegal sa benn tànk nga dëkk ma nànk sa noppu ma daal di lay dee lu neex man Yaceli Beauté ba mu yegsee si Sénégal nag la jigéen ñëpp daal di wëlbatiku dem foofee moo xam maquillage nga bëgg coiffure wala esthétique Yaceli Beauté nag da lay teeru ba nga teeru dalal la fekk suñu employé yaru yii macha allah. tëddal nelaw xam ni mënul dara Yassel Beauté nag ba mu ñëwee si réew mi yaa guddee nga ne ma waaw waaw man maa ko wax ma ne Yassel yi bu yegsee dina la teeru teral la daal di lay teral comme ni ñuy teralee buur doxal nànk jéggi nànk dem toog sa fauteuil ya pédicure ba laay lay la laaw xoolal ma lii nu mu jékkee rek macha allah yaa Seli Beauté tegal ma fopp sa loxo ma ñëw yaa Seli Beauté dina la defal bépp tresse boo bëgg nag boo mën ci soxla si àdduna am na ko yaa Seli Beauté suñu make-up nag fii la fekk baax nga ne ma suñu ay ongul nag laay lay da daa ongul boo soxla am na ko pose ongul nag ñëw ko daq senegal maa fa teg loxo nga ne ma maa fi teg loxo laa la wax man mi yaa Seli boote boo ñëwee dañ lay xoolal sa loxo ba mu set pédicure bu amul fenn yaa Seli Beauté yaa Seli Beauté dégg leen ma de ma ne ngeen tijji seen nopp ngeen déglu ma bu baax ma wax leen Yaa Sali Beauté jëm ak yéen Yaa Sali Beauté da la defal la li nga xamante moo nekk pédicure a jigéen mu daal koy dugal si benn muus nga bëgg xam Yaa Sali Beauté nekk ma ne ko fekk ko fii si cité Léopold Sédar Senghor derrière stade marché amitié Yacel Beauté téléphone au 77 490 79 00 wala 76 490 79 06 Yacel Beauté seen taar moo ñu gën a amal solo.